الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وتوكلت على الله اعتزمت بالله واستجرت بالله واستعنت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله المالك الديان العظيم الكبير السلطان الحليم المنان الكريم الحنان الجليل الجميل الشان المتقدس عن الأبداد والأنداد والنزراء الوزراء والشركاء والأعوان أوجد بقدرته جميع الأكوان وأحاط علمه بما يكون وما لم يكن وما كان يعلم السر والنجوى والجهر والإعلان تسبه له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن بهن ومن عليهن وهن على وحدانية ربوبيته وإلهيته من قواطع حجة والبرهان ولا تحيط بالعلوم ولا تكيف الأذهان ولا تغير الدهور والأزمان أحمده سبحانه وتعالى على نعم تجل عن العبد والحسبان وأشكره على جزيل الفضل والامتنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كثير الخير دائم الإحسان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد أدنان وعلى آله صافي الجنان وأصحابه أهل الجنان والتابعين ومن اترى بهديهم إلى يوم العيام أما بعد فإنها لتحيات أحلى من رحيق المختوم وأشهى وتمنيات أغلى من الدر المنظوم وأبهى إلى كافة الحضور أهل المجد والخيور فإننا جئنا جئناكم بقلوب مليعة بالفرح والسرور بل جئناكم بأقول فاحمة بالتوق والشوق والبهجة والبحبوحة والبهاء والهبور نتمنى لكم ولأنفسنا أن نكون خير الخلف لصالح السلف أتمنى للجميع طول الأمر وصحة البلد والخير والأمن واليمن والبركة وأشكركم دائما أبدا شكرا لا يغدغده ماتح ولا يبلغ قأره سابه وما ذلك الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بي سبحانه وتعالى يوم يالله من خمنا يا تيم لك يوم يالله من خمنا يا غل لك يا إكاو بي خمنا دغة تيم ولا يا يغن بي خمنا كان سوفور لك yaay aji njëkk amoo tàmbali yaay des ba faw amoo jeextal yooyu yàlla mi nga xam ne yaay cayit waaye yow yàlla mi nga xam ne yaay dappet yaay moos ba moos lépp fi yaay fi amal waaye lépp fi la nga nekkaat di yàlla bi nga nekkoon yow yàlla doo màgget doo magal doo ras doo koton doo nelaw doo gémént doo yandoor doo xiif doo mar yow yàlla dong yaay laa ilaha illa fii ñu toll jonn kenn nekkul yàlla bul yow li passé kenn nekku ci yàlla ku dul yow lii dikk kenn mënu caa nekk dara bu dul yow borom la nekkul la musta nekk la du nekk mu ilaaha borom boo xam ne jaamu ko dana jur njëriñ ñàkk koo jaamu du jur loo amul illa waa bu du yow yàlla buñ ne laa ilaha illa huwa yow yàlla la buñ ne laa ilaha illa anta yow yàlla la buñ ne laa ilaha illa ana yow yàlla la yaay ki ndaa kepp yaay ki pekkeew boo sampee kenn du sempi waaye boo sempee kenn du samp ron asamaan si ne nekkul ku dul koo fi neexal kaw suuf si kenn doxu ci bu dul koo fi neexal yaay lépp yaay lu nekk yaay fépp sa jaam bi yem ci sa jaam bi képp ci toog na ak i moromi jaamam di la bàkk yow yàlla di la kañ di la jiin di nanguwaat ne ki leen amal andi leen fi àdduna yow la waaye yow yaay jeexal seen ngam jëlee leen fi te kenn dëkk boppam du ko fi bal pàkk bi juróom fukki at yi passé ñi fi nekkoon kenn nekkatul juróom fukki at yi di ñëw muy man muy yéen kenn dootu fi nekkati ana fan lañ jóge عالم الأرواح أنا فن لنجم برزق بل فجر فن لنجم يوم الآخرة بل فجر فن لنجم يوم القيامة بس بوخنا كم دو توق بلو سيدنا محمد نيب دني تهو يوم القيامة قام يقوم قياما كرب نيب يتهو كم دو توق بلو خير خلق الله تمو سيدنا محمد Muhammad moom nga xam ne loo wóolu sawaay loo màggal sawaay loo terale sawaay loo nawee sawaay ci kim ko jële mooy Seydina Muhammad mooy ci Baay Ñas joxoñoon na ko anta baabullahi wa xaazinu fadli yàlla benn buntu rek la am bu jëm ci moom mooy kenn mooy Seydina Muhammad ku ci jaar danga yegsi waaye ku ci jaarul doo yegsi mu anta baabullahi yow yay buntam yàlla xaasinu fadlihi mboolem mangasinu ngëneelu yàlla kenn moo koy xam mooy Seydina Muhammad foo ko jëlee ku la ko jox noo ko amee nu ngeen ko amee kenn moo ko jox mooy Seydina Muhammad moom dooga moo am di seddale ku am dañ laa sedd ngay seddale waat waaye kenn kiy seddale mooy Seydina Muhammad yàlla sa jaam baa ngi nii ànd ak ay jaamam yaakaar ñu kenn ku nu yow yàlla ñu ngi ñaan sa njëggal fawqal ard sa baal taxtal ard nga bañ ñoo jéppi yow ma alaykal ard bu ñuy ci kaw suuf si nag ñu jéggal bu ñu wàccee ci woon suuf si nag ñu yërëm bu ñu taxawee pénc xamal ne amuñu kenn ku ñu mën a dimbale ku di yow yàlla bul ñu jéppi mu ci barke Seydina Muhammad ñu ngi ñaan yàlla boobale lépp lu mu yore ci riddi càll ngeneel ci uppak ngelaw teraanga ci walangaanu ndoxu jàmm ci bambulaanu géeju teddanga yàlla bu ci benn dàkk di walwale ci kaw Seydina Muhammad jëmm jooju nga xam ne jigéen musta jur lu mel ni moom te daa iman wa jigéen dootul mel ni lu mel ni moom muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaaquutati bayna al xajar muhammad mooy kam nga dajale ay doj kese lay melax ci biir te du doj ñu tuddee ko jamaa mooy Seydina Muhammad ñëpp doj kese lañu kii jamaa ci biir doj yi kenn rek la mooy Seydina moo tax li sëñ Touba wax dara mënu ko génn sëñ Touba dafa xool Seydina Muhammad xool ko xool ko ne ko ba mbind yàlla tàmbale ca azal te mooy cay ba mbindam yàlla di koste ca abat ak sarmat bu ñu dajale woon ñëpp def leen benn jëmm ne leen kii mooy Muhammad ñun ñëpp lil Mustafa xayri xalqillahi manzilatun law wujjihat nahwaha kullul wara haaru alhamdulilahi rabbil alamin aywa yonent boobu rek ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla ci barkeem bu ñu tëddee ci bàmmeel ba suñu bàmmeel yëpp rab tableau bi ñu fa defoon bu demee ba rab ko kenn mënatul jàng suñuy tur bu ñu demee tëdd suñu bàmmeel yi benn ndox di duggee suñu nopp càmmoñ di génnee ndeyjoor bu ñu tëddee ci bàmmeel yi kañe yi di ko gas jaar yi di ko gas xarit siyaareetuñu doom dikkatul xarit dikkatul buñ demee ba ñëpp fàtte ñu demee ba ñuy bugg a rob keneen suñu kaw ngir rab ko suñu bàmmeel yàlla ngi lay ñaan keroog suñu njaatige yàlla na Seydina Muhammad sahabaam yi ak képp kuy xeent yoonam ba kër yawmal qiyaamati mbokk yi bi njëkk a jéggal fii ma ne nongo nongaanal toog ci kaw yéen yéen a waroon toog ci kaw ma toog ci suuf bu dee sang la yéen la bu dee ay kilifa la yéen la bu dee mu daraja la yéen la kii ngeen teg ci kaw abdul min ibadillahi benn jaam la ci biir jaamu yàlla munul xamul dafa lott ku tele fu mu toll yéen a ko fa toll yàlla bu leen toog ci mukk yaa rabbi euh, yàlla bu leen gis seen jëfu mukk yaa rabbi euh, am na ku toog ci biir mbooloo dàllam yépp dañ ko def fi ndifeer ñu ngi bàyyi kooku ci ginnaaw ne man la ñuy teel bu ñu xamoon kooku mooy borom jamono kenn du jëm ci man ci kooku lañ jëm te ñu ngi fii ci biir mbooloo mi dàllam dañ koo kole am na koo xam mbubbam yépp dañ ko daax ndeka moom ba la yàlla di déglu tey ndeka tànt bii taxaw te daanuwul ngelaw yëngalu ko ndeka boo gisee li fi nekk yëpp di ay teraanga nekk fi ndek benn jëmm joo la nanguñ mu toog ci kaw sax ci suuf lañ ko toogloo te ci toog ci kaw moom ak yéen bu xamul kooku kan la kenn nangoo toog ci kaw ci la bokk ci la bokk mënta ñàkk ci la bokk alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ci la bokk ci la bokk aywa dafa xewoon ci jamono yi yoon ci yàlla Muhammad ba mu wàccee liggéey Seydina Aboubacar Siddiq daf ko wuutu ñaari at faatu Seydina Omar ñoo wuutu ko fukki at ñu faat ko Seydina Ousmane ñoo fukki at ak ñaar ñu faat ko Seydina Aliou ñëw ñeent at ñu faat ko Alxasan toog juróom benn weer ñu posone ko Alxuseynu toog ñu ñu faat ko ca Karbala ci réewu Irak dagg bopp bi di ko sànnante comme bal ana moo gën a métti li mbokk yi deratu Seydina Muhammad yemuñ ci rey ko waaye ñu teqale diggante bopp bi ak yaram bi yaram bi ñu suul ko Karbala ci réewu Irak ana bopp bi ba léegi kenn xamul fan la bopp bi ne boo demee dëkk bu ñu dee Damas ci bunt bu ñu dee baabul faradis ci jàkk bu ñu dee di masjidul umawiya ci jaami ustari am na fu ñuy siyaara ne nañ boppam fa la nekk seetal yaram bu nekk iraq bopp bi nekk ba damas boo demee Palestine am na dëkk bu ñu dee Asqalaan nee nañ bopp bi fa la nekk boo ñëwee Caire maa ngi gis benn photo ak Cheikh Ibrahim mi ngi taxaw nee na fa muy ziyaara fa la bopp nekk kon ndeka bopp alxuseyn ba léegi mi ngi dox te kii mooy ñaareelu sëtu Seydina Muhammad kon lépp lu ñu yàlla tegoon nañ koo mun bu ñu xasee baax na bu ñu ŋàññee baax na bu ñu doyalee baax na ki nga xam ne mooy sang waxambaane aljana nii la ñu jaar ak moom bañ ko faatee kan moo jël xilaafa bi Muawiya bun Abi Sufyaan jamonoom bekkoor daal di am ñu def ay julli baaw na tawul ñu wàcce ay kaamil tawul ñu def ay sarax lépp lu ñu xalaat lii boo ko defee da am gërëmaande yàlla mu taw def nañ ko taw booba jaam jeexul biir kër mu aawiya am na jaam bu fa nekk dafa laago dafa paralysé buy dox dafay def loxo bi dafa sem tànk bi daf koy diri ñu ne dox la moom dafay tëdd ci buntu waañ bi bu jigéen ñi pare muy dindi keemaado bi ak padan bi ak xooñ bi di ko lekk bu paree mu teg leket ci dënnam di ko dóor xale yu jigéen yi di fecc benn ñi dee ba bugg dee mu daal di yooleeku génn kër gi ndeke moom daawu génn kër gi am ku ko seetlu topp ko muy dox ba jeexal dëkk bi yegg ci benn àll mu gis benn montagne mu dugg ci xunt bi waa ji di ko xool mu jëñax benn xeer ndox tàmbalee génn kii mooy dof ki jëñax xeer ndox di génn te asmaan si tawul waalo bi warul mu daal jàpp ba pare mu julli ñaar rakk ne yow yàlla mi aj asamaan si dékk ko ba geeweekuwul yow yàlla mi dénd suuf si lal ko ba nekkul di baaj baaji mag ñi mag ñi mag be ko tooto guddi gi lu mu sedd ñu dugg ci waro bi jàpp di kot koti di xuus lëndëm bi jëm ci jàkka ja lan lan la def xale yi tuuti tëdd seen lupp yaay di namp yaakaar seen yaay regg meew dugg ci meew bi ñu namp boo leen xañee meew luñ la def yow yàlla ndeg yi ci àll bi kéwél yi xooba yi nag yi xar yi béy yi gëléem yi boo saxale sa dekkoor gi ba ñu dee luñ la def yàlla boo toppee ñu bon ñii bañ leen a jéppi da alam ñu baax ñi lii rek la wax mu tàmbalee taw jàngul alquran deful ay dox tuddul yàlla jullu ci Seydina Muhammad dafa kañ yàlla jiin ko mu commencé taw laata mu yegg ci dëkk bi kàmbu yëpp fees na deewul de yëpp fees na sayaan yëpp fees na teen yi ba ñu ngi mam mënuma dugg ci kër gi te moom lañ na doful Muawiya doomi bàjjanam ñoo ne ko doomi nijaay day doomi bàjjan dara bëgg nga yuppil ma mu ne ko loo bëgg mu ne ko jaam mu ne ko fee la waxambaane nekk fa la njegamaar yi la jongoma mu dugg fu nekk gisul waaye mu ne ko man li ma bëggoon gisuma ko mu ne lii de laa amoon ci ay jaam mu toog tuuti mu dégg ndënd bu ma ne ndënd mooy leket mu ne ko lii nag mu ko benn dof moo nekk ci kër gi de mooy yëngal loolu fu mu nekk ca bërëbu jigéen ñi kenn du ko tere mu dem ci bërëbu jigéen ñi waaye ngir ndofam moo tax ñu koy bàyyi mu dem ci bërëbu jigéen ñi mu dem seeti ndeke waajal mu ne ko kooku laa bëgg mu ne ko ngel la yóbbu nitam na ko kenn mën na ko sànni waaye kii ku ma ci musal ma am jàmm lekkatam bi rek lay tëgg kër gi yëpp xatal na mu yóbbu ko këram ne ko la nga nekke woon kër mu aawiya ca waañ ba ca lekkat ba di tëgg naka noonu waa ji xam ne kii xam na ci moom lu ñu xamul ci moom mu toog ci kër gi ba jamono mu foog ne kenn yëgatu ko mu yollee ko waa ji di ko yëdd ba mu yegg ci doj bi mu yeggoon mu jëña xeer ba ndox commencé di ball mu julli ñaar rakk ca sudi bu mu jóga mi ngi naan yaa saahiba sir inna sirata zahara wala uridu hayati ba'da mustafa yow ki defoon secret bi ci man bépp doomi aadama yi jaaxle ma jaar ci say a bàkk la kañ la nga defal leen jàmm secret bi kat feeñ na de te bu tasaaroo duñ la jaamoot yow kenn dañ ngay jaamu jaamuwaale te loolu bokkal la yàlla rey ma nu mucc ma mucc mu yàgg sëgg bañ ko laale këndën ndeke dee kii moo doon borom jamono xutbu zaman kon ñu ngi naan sëñ bi Muhyiddin yéegal ci kaw am na ku toog ci suuf maa ngi ko romb nekk mooy borom jamono ndeke ci man xajul ci kenn benn ngeen a joom na baax bi sànni ko fu kenn mënta yegg waaye ndeke barkeem moo téye courant bi ndeke barkeem moo bi ndeke barkeem moo aar doomu aadama ba ñu toog di déglu ci jàmm ak salaam kon ñu ngi naan jëmm ji jëmm ji la ñu ngi koy teeru ah déedéet romb ngeen borom romb ngeen borom maslaha moo ma toogloo ni waaye maa ngi jéggalu li ma nekk ci kaw kilifa yi nekk ci suuf maa ngi jéggalu lillaahi wa rasuuli li ma fi andi nag du daa budul fay hal jazaa'ul ihsaan illal ihsaan lu baax fayam lu baax dong mbëggeel Seydina Muhammadan ma diinu illal laa ikraaha fi diin nit ki day bëgg sóobu sukkuraam jébbal li koy def loo moom bëggee yàlla nee na asamaan yi àttanuma xajuma ci suuf si àttanuma xajuma ci te mbokk yi asamaan bët mënu koo gis li ñuy gis du asamaan li la ñu tuddee alfadaa kaw bi li la ñu tuddee l'univers alfadaa al kaw bi bu dee wolof la nga ne landang suñu diggante jant bi rek ñun waa suuf si bu jant bi yéegul wàccul mi ngi doon cent cinquante millions kilomètres téeméeri millions ak juróom fukki millions kilomètres te seetal diggante aéroport Dakar Yoff ak aéroport Orly ci France cinq mille kilomètres la juróomi junni kilomètres lii nag waxuma junni de ay millions laa wax diggante suuf si ak jant bi bu yéegul wàccul mi ngi doon cent cinquante millions kilomètres yenn mu yéeg tuuti ba doon cent cinquante deux nangam ci kilomètre yenn temps mu wàcc tuuti jamono yi noor mu tàng mu doon cent quarante neuf virgule six ci ay kilomètres te jant bi biddiw la de biddiw bi ñu gën a jege gannaaw jant bi mooy biddiw bi ñu dee Port Saïd diggante nag suuf si doon trois virgule quatre ci atu lumière te lumière mi ngi dagg ci benn seconde trois cent mille ñetti téeméeri junni kilomètre la lumière di dagg ci benn seconde te suñu diggante kooku mi ngi doon trois virgule quatre ci atu lumière te gis nañu gum ay million million ay biddiw te lépp loolu asamaan bu njëkk ba kon naka la bët di gisee asamaan bët mos ko gis asamaan asamaan bu njëkk bi muy lay yëpp boo ko sànnee ci ñaareel bi mu ngi mel ni nga jël jaara sànni ko ci digg marché bu dul yoon ko sànni kenn kenn yi asamaanu bi noonu la mel ci ñetteel bi ñetteel bi noonu la mel ci ñeenteel bi juróomeel bi juróom-benneel juróom-ñaareel bi yëpp boo leen boole sànni kursi mi ngi mel ni benn pikini benn duubal benn fitin boo sànni ci benn ndànd foy foy te course yi li muy rëy yëpp boo ko sànnee ci archu rahman mi ngi mel ni nga taxaw ci ñukk ñukk mooy lan mooy océan mooy géej nga sànni ci puso coox condoo yow mi ko sànni sa te yàlla nee na moom xajul ci asamaan xajul ci dara ñu ne ko foo xaw xaj mu ne xal bi abdi al kon mbëggeel dara mënu ko faj li leen di yóbbu ba sama du xam-xam du lijaaba du xabul du kër du lekk yu neex li leen fa yóbbu mooy mahabbatu mbëggeel la moo tax mbeugel yalla nangou ko feñal na ci ay morokan la bok alquran an na juróom ñeen fukki tur ak juróom ñeen fanweer ak ñetti zaat la fanweer ak ñetti sifaat la fanweer ak ñetti afaal la 99 noo ñëw na ci alquran waye yalla ya nangou lox mbeugel abadan ndax doomi aadama attanu da koy jiyam waye do ci yeen mahabbatu def ko junj nag boo bindee mahabbatu juróom fukk ak juróom la mahabbatu miim bi ñeent fukk la xaa juróom ñett la baa bi ñaar la taa juróom la muy juróom fukk juróom boo bindee mahabbatu juróom fukk juróom nga bind mu ji bu muy juróom fukk juróom nangu koo feeñal daf ko nëbbu ci biir mu ji bi moo tax mu ne Muhammad luñ la mun ci laaj ci àddina bi na nga tontu waaye bu dara desut mbëggeel sama diggante ak jaam joxal suñu diggante yasalunaka anil anfaali qul yasalunaka anil maxiidi qul yasalunaka maa yaa yunfiquun qul yasalunaka anil xamri wal maysir qul lu ñu la laaj qul tontal waaye idaa saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daari iza daani ujibu ajaaba yujibu mujibu kon mbëggeel boobu moo leen fa yóbbu mbëggeel boobu mbëggeel bi ci la doomi aadama yarante dafa xewoon fii ci njaareem sëñ Touba di nattu ay taalibeem nitu yàlla yi balaa ñu lay jox yenn maqaama yi foog ñu nattu yàlla dogal sëñ Touba daal di rëdd benn rëdd na rëdd bi képp ko jéggi rek safara nga jëm yu bëri daal di beru sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul mu ngi toog Cheikh Ibrahima Fall daal di ñëw Baabul Muridiin na ana sëriñ bi ñu ne ko mi ngi nële lu leen teel yegg ci moom ngeen di kotom kotom ñu ne ko rëdd bii de sëriñ bi ko fi rëdd mu ne ko ko jéggi safara nga jëm mu ne ana sëriñ bi ñu ne ko sëriñ Ba moom Cheikh Ibrahima Fall mu jéggi sëriñ Tuuba nag mu ne ko man rëdd bi soxla buur bu jaar dugg ci kaw laa ragal pour mu mucc ci kii moo soxla daal mooy yow kii ma xamal aljana ak kon gis nga mbëggeel fu ñu ne mbàkkee ne taal jaga yaaram lan moo ko may te moom dong nekkuloon taalibe mbëggeel bu jéggi daga moo ko may li yal yàlla fay leen lu ngeen xàcc yàlla na jegeñ lu ngeen dàq yàlla na sori yàlla bu leen dal ci fitna yàlla bu fitna dal seen kaw maa ngi nuyu kilifa yëpp amul ku mu ku mu bàyyi gannaaw yëpp maa ngi saakoonte ak di sukk seen kanam di waat ci seen kanam màgg di saakoonte ak yéen xol ak xol mujj moo am solo yal na yàlla may mujj bu rafet bi xormati xayri xalqillahi yonent boobu nga xam ne lool ñaan ci barkeem yàlla defal la lool ñaan ci barke Seydina Muhammad yàlla defal la ñan ñu dul julli ci barke Seydina Muhammad la ñu doxee am na benn bindkat bu rëy anglais la ñu ko tuddee Michael Hart dafa bind benn téere tuddee ko alxaaliduuna al mia téeméeri nit yi nga xam ne du ñu dee te moom du julli chrétien la chrétien bi gën a dëgër ci la bokk mooy orthodoxe ñoom ñooy ñu nekk Amérique waaye mu andi téeméeru nit ñoo xam ne nee na ñoom deewuñu dañoo laqatu waaye ba léegi ñu ngi di jëriñ doomi aadama waaye kii ne doññe teg ko ci kaw bopp kayit bi mooy Seydina Muhammad moo ko bindal boppam ne kenn bindal ko mu soog a teg ko ñu tey ni yotoon mu soog a teg yow teel islam mu gëm nga jiite sëriñu jàmbur teg ci benn scientiste nga soog a teg sa sëriñ xam nga ne Muhammad kon kenn du moom dañ ko traduire bind ko ci arab waaye mi ngi bind ci anglais mu I don't see mooy musuma gis I don't see àndi woon gis kenn àndi mooy kenn ba kenn jeex anglais bu ne woon mooy benn waaye àndi woon kenn I don't see gisuma àndi صوت محمد ومن محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت أحدا مثل محمد I don't see anyone but Muhammad. Gisu ma kenn ci mbiram yàlla bi ku mel ni Seydina Muhammad. ñu toxal ko ci arab ne lam ara ahada misla Muhammad. Gisu ma kenn ku mel ni Seydina Muhammad. te kii du julli Isa wa topp te Isa wa teg ñetteel ci gannaaw kon ku ko jàpp mooy ki ñu war a jàpp ku ko jàppul bàyyi nga ki nga war a jàpp sallallahu alayhi wa sallam li ma bëgg nag mooy ñaari baat ñëw na ci alquran maag yéen ñëpp ñu tënku ci mooy laa tay asu laa taqnatu motu ko bu ñu dund loolu jaaw ko bu ñu dund loolu ah dama doon sàcc bu ma tuubee duñ ma jéggal léegi tuubal yàlla buntu yàlla dafa ubbeeku amul ku yàlla dul gàttal. dagaloon fen ba ñëpp xam ne fen kan la. laa la gàttal. dafa doon jigéen la wala góor la. du yendal du fanaanal. góor bu dikk mën na ko bisimil la. jigéen boo ko am ni mu woddoo. dellu ci yàlla. nga jaar ci Seydina Muhammad. walaw annahum iz zalamu anfusahum jaa'uuka Estağfurullah ve estağfurullah Resul. La vacibullah tavvallah. Vallahi bu cihazı Seyyidina Muhammed. Bakar dukuluya yalını kuzudur. Seyyidina Ömer Seyyidina Ömer'den de bir sürü doğumun ciğerini gidiyor. Seyyidina Ömer bunu hatta

waa Seydina Omar boobu moom mu jotoon ñaareelu xalifa Seydina kon laa kay asur min rawatillah bu leen ne motatu ko bu ma tuubee yàlla du ko nangu déedéet danga doon sàcc bàyyi ko lépp yàlla def ko ay tiyaaba seddale la ko yaatu nga jëloon awala dafa doon jaaro na tuub dellu ci yàlla lépp yàlla soppi ko ne sa nga àndaloon sa jëkkër nga àndaloon danga doon naan sàngara tuubal lépp yàlla téye ko meew nga doon naan danga doon def doog bàyyi ko yàlla téye ne sotti boo doon mu bindal la yoonu sunna Seydina Muhammad danga doon kaabaane danga doon woro danga doon wuut danga doon xaasaatu danga doon lekk riba dawal jëm ci yàlla dana la gàttal laa tay asumina rahmatullah na ngeen bàyyi xel ci yooyu. Seydina ku góorgóorlu la woon ci diina ku amoon yàlla ku amoon Seydina Mohamed la waaye njël benn noonu de am na téere boo xam ne Sénégal sëriñ sépp jàng ko ñu ko tuddee bi ci Tunisie waaye sëriñ bi ko jàngal Abdou Karpela maa ngi jégalu nee na Abdou Karpela la pël la naa coo xam karaw li ma séeréer boo waaw coo xam karaw kon góor yi samay mbokk lañu séeréer yi samay kàll lañu kon ñu bàyyi na addu karaw ñu ne jox ma karaw bi wala coo xam karaw addu karaw la waaye tuub na jëm ci yàlla jàng ba jàngale ba moom moo jàngal ci benn téere bi ñu de risaala li ko dee imam sax ñu kon bu suñu yaakaar tas ci yàlla képp ku nekkoon ci loo xam ne du génneel dawal nga dellu ci yàlla daawoo musóoru musóorul nga kaala daawoo dem jàkka ja deel ngay dem jàkka danga bañ nit kii demal nga jubóog moom jox ko loxo du jomb kii ngay tongool ëllëg mooy jënd huitaine yi def sa nopp balaa lay suuli kii ngay bañ ëllëg façon la tàkk dem tàgg ji la ki ngay tongool ëllëg mooy jënd càngaay ñu jox la kii ngay xiiroo ak kii ngay ŋaayoo ëllëg mooy téye pikk bi gàttal la bàmmeel kon nañ jubóor nañ joxante loxo Seydina Muhammad lii la bëggoon ci xeetam sallallahu alayhi wa ñu jeex tàkk ci yàlla li ñu moom ñu yem ci li ñu moomul nañ ko bàyyi seeni borom la ñu bokk nañ ko jëflante bu ñu dund tey politiciens yi la ñuy dund déedéet ñu dénk la dara nga dem tabax kër yóbbu say doom yëpp bitim réew ñu jàngi say soxna nga jënde ay boole tey bës déedéet alalu mbooloo delloo ko mbooloo Seydina Omar radiyallahu taala mbedd Makka yi dafa mbedd Medina yi dafa climat mu dajale ñëpp ci jàkka bi ne bu subaa ku am illeer na nga andi bu subaa ko am waxtoon nga andi ba mu paree mu daal di ëpp lam moom fay ah ñu ne ko Omar dañuy bàyyi ci lëndëm bi mu ne ba may wax njëriñu julli bi lamp yi ñoom na ko moom ma taal ko pare naa ci liggéeyu julli bi ma fay ko kenn ku nekk na jëfandikoo lamp boppam ñun dañ lay def ministre ngay taal oto réew mi di ko daaw dañ lay def député nga jël essence su dëkk bi di ko dawam dañ lay jox alal nga war ko def ci dëkk bi ci hôpital bi wala ci école bi wala ci lafañ yi wala nga waroon ko def ci ay kaniwo nga waroon a jënd ay oto yuy setal dëkk bi nga daal di ko denc ay compte bitim réew ndax lii moo taxoon ñu jiital la déedéet Seydina Omar ba mu waxee farata yàlla ba mu pare dafa fay lamp yi ñu ne ko Omar dañuy bàyyi ci lëndëm mu ne déedéet ba may wax li mbooloo moom ma jëfandikoo alalu ndebo mbooloo dama pare loolu kenn ku nekk yaa ngi ñibbi làmbatu ngeen ñibbi seen kër xam nga kii du jël alalu mbooloo de Seydina Omar waxoon naa leen gaañu gaañu bi mu amoon ci jëloon waaye Seydina Omar tuñu suufam bi dafa tojoon foo ko gis dafay nàcc dara foo ko gis dafay yore sagar li fomp tuñam dana am ko ne xanaa civilisé bu woon civilisé na moo ne du ci def diw ñu ne ko lu moo ne dafa amoon kuy bindal Seydina Mouhamed ñu mu dem ba muy dem Seydina Omar may ko mbubb mi doon na rafet ci ay mbubbam mu dem ay fan yu néew mu ne mbubb yëpp mi ngi xottee lépp mi ngi xotteeku mu mu bees tax piis bu dëgër lépp xotteeku Omar na ko wax sama mbubb mi moo gën a dëgër sama mbubb waaw lu ko xotti ni benn ay sagar mu ne ko Omar dama seen benn béy benn béy de benn sikkati béy mi ngay lekk ca si déem ba ndekk sikkim ba